muy xew-xew bi am solo euh, fii ci camp général Idrissa Fall bu Liberté 6 président de la République Bassirou Diomaye fay ñëw rek ngir teewee sorti promotion maanaam génnug ñi nga xam ni ñoom la ñu doon tàggat ci institut de défense bu Sénégal muy nag l'école bu am solo boo xam ni l'armée bu Sénégal wane ci liggéey bi muy def te ñëpp rafetlu ko. ba tax bi mu jëlee kàddu moom mi nga xam ni mooy chef suprême des armées président Bassirou Diomaye fay dellu si na ci li nga xam ni euh, moom la ñuy def euh, ci liggéey ngir tàggat ñi nga xam ni ñoom ñoo di officier yi fiy génne toll nañ nag euh, ci ñeent fukk ak juróom-ñaar jóge ci Sénégal waaye tamit ci yeneen réew yoo xamante ni suñu xaritoo ak ñoom lu am solo la rawatina ci wàllu kaaraange gi mooy mbiru l'armée dafa fekk ni nag lii di karange dafa am solo ci jamono yi nga xam ni jamono yu tëri di rawatina ci Afrique sow jant ba tax njiitu réew mi wax ne bu weesoo rek li nga xamante ni moom la ñu jagleel larme bi ci wàllu matériel tàggat ressources humaines maanaam nit ñi ci seen bopp ngir rek ñu mën a farlu ci liggéey bi lu am solo la ba tax muy bég moom di teewe ndaje bile ci noonu nag gannaaw kàdduk kii di général Koli Faye ci solo école bi Euh, ki nga xamante ni moom moo di recteur université bu ndakaaru euh, di amadu Ali mbay moom it dellu na ci solo bi nga xam ni euh, Sénégal moom la war a bàyyi xel rawatina ci wàllu kaaraange ndax gis nañ ni lépp rek lu jëm ci wàllu koom ak lii nga xam ni moo di nekkinu askan wi dañ ko war a bàyyi xel. loolu sax fekk na ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa yi. rawatina président Bassirou Diomaye fay ñoom jël ci ay euh, dogal yoo xam ne lu am solo la ba tax euh, fàttali ko euh, ci kanamu li nga xamante ni moom moo di assistance bi kon daal mu nekkoon cérémonie bu am solo gannaaw nag kàddu yi jëpp njut réew mi xaatim na livre d'or bi waaye tamit jox nañ ko fa cadeau ci noonu kon mu amal photo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di moo di diplômé yi génn ci école bile mu nekk saafonti bu am solo diggante moom njiitu réew mi chef suprême ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk li di armée bu Sénégal